parce que boo ñëwee dañ lay jox ay muslaay ak i kaaraange ak i ubbeeku ak kiis ak big bi lañ lay jox yaa ngi may dégg te ba pare sax après dinañ maye ay quelque euh, maanaam euh, ay mm, yoo xam ne kiis la yoo xam ne ku ko naan maanaam képp koo xam ne tey jii nii yaa ngi xëccoog moom rek wala ngay def bafem wala ngay def beg wala ngay bag wala ngay jàng alxuraan yaa ngi may dégg suñu borom dina la may ndam yaay bokk ci première yi. Mm. incha allahu taala. après da koy baaxee gars yi. voilà après dinaa ko baaxee gars yi man képp koo xam ne ñëw nga ci man ngay def bafem wala bag ci kàttanu yàlla nga ñëw ma jëf jëflanteeg yow ci faatixatul kitaab ak fax naa la ka zikraka ak wa rafanahu makaanan aliyan ak ilayhi yasadul kalimu tayibu wal amulu salihu, yarfa'uhu ya ngi deg ak ya raafixu ya wadudu ci kàttanu sunu borom ak yimi andal suma la ko joxe ci kàttanu yalla manam dama lay sol xam-xam dama lay sol xam-xam mo xam ngay jàng alxuraan mo xam ngay jang français mo xam ngay jang anglais mo xam xam-xam bo manti am ci aduna yor nañ xeyta ki so xamne nga xamne man wax deug yàlla comme li nga wax rek Serigne Saliou mbake daf ma defal lo xam ci rabbi khada taytani minal mulki wa allamtani min ta'wil al ahadisi as samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirati tawafani musliman wa alhiqni bi salihin suñu borom dañu ci defal lo xamne ne ngi may deg han manam dañuy sol nit ki xam-xam dañ ci dañuy sol nit ki xam-xam bo ñewé dañ la defal kiss go xamne lépp lo jàng dina gaaw a mokk te doo ko fàtte te lépp loo xool mokkal ko. Ah, suñu borom daf ñu koo defal. ba pare tamit aussi euh, ci waxur rabbi zidni ilman dañ ciy def xeetu kiis yoo xam ne macha allah yaa ngi may dégg ak euh, wasaabixuna saabixuna dañ ciy def ay ay ay ay wàllum examen yoo xam ne képp kuñ ci jëflante rek suñu borom dina la defal tawféex da nga bokk ci cinq première yi incha allah. te incha allah devise da nga ko dagg ci kàttanu yàlla. macha allah yéen ñi nga xamante ni da ngeen di def BFM wala ngay def bac wala ngay jàng wala nga bëgg këyit wala nga bëgg xam-xam. nee naa la boo ñëwee si sëñ Cheikh Gaynde ma sa ajo day faju te ba pare. Mhm. Euh, maanaam képp koo xam ne tey jii nii école tijji na wala école tey jii nii euh, mi ngi waaj ubbi. Mhm. na nga fexe ba dem euh, dinañ maye xeetu xam-xam boo xam ne ci alxuraan la. Mhm. maanaam képp koo xam ne def nga ko lépp lu ñuy xëccoo ci àdduna. moo xam BFEM wala bac mhm. wala ngay jàng alxuraan mhm. lii képp ku ko def ci kàttanu yàlla maanaam lañuy xëccoo maanaam lépp lu ñuy xëccoo dana am ñu am am ñu amul mhm. mais suñu borom dina la muccal ci ñi nga xam ne ñoo am yow moom noppee ngaa bokk ci ñi nga xam ne ñoo am képp kuy def BFEM wala ngay wala ngay def bac yaa ngi may dégg wala ngay jàng alxuraan lii nii ma lay wax nii boo ko naanee wallaahi wal xuraani lépp lu ñuy xëccoo ci àdduna yaa ngi may dégg yow sunu borom moom musal na la ci ñi nga xam ne ñoo ñooy échec sëñ loolu lan la waaye gaawee ñu ko mooy aaya bi nga xam ne mooy wala xadde yasarna al qur'ana li zikri fa hal min mudakkiri maanaam aaya boobu boo demee ci suratul xamar ñëw na fa ñeenti yoon mm-hmm. moom ngay jël bind ko ñeenti yoon mm-hmm. wala bu la neex nga bind ko cinquante cinq mm-hmm. bu la neex nga bind ko quatre fois bu la neex nga bind ko limu cinquante cinq mooy limu yaa mu jiibu mu jiibu mm-hmm. mm-hmm. yaa mu jég nga naan ko billaahi wallaahi képp ku ko def ci kàttanu sunu borom lépp lu ñuy xëccoo moo xam befem moo xam bag yaa ngi may dégg moo xam lu mu mën a doon ngay jàng alxuraan yooyu sunu borom dina la musal ci ñi nga xam ne tey jii nii ñooy échec sunu borom dina la may xam-xam loo jàng di ko mokkal te dina gaaw a dugg te ko fàtte. ndax am na ñoo xam ne dañuy jàng mokkal fàttewaat. Mm-hmm. loolu ne xel naqari xel moo koy def. Mm-hmm, mm-hmm. yaa may dégg xel mu nëx. waa xel mu nëx. moo koy def maanaam képp koo xam ne daal jaar nañ fi ak yow moom ci wàllu BFEM wala BAC. suñu borom dina la defal tawféex. incha allah allah mbokk yi jàpp leen turam bu baax Serigne Cheikh Gaynde Fatma uh, mi ngi nekk Cambérène 1 ak Malika Plage la fay nekk nag bës yëpp day liggéey nag altine ba dimanche. yan ba yan yan heure lay liggéey ak yan heure lay xëy ak yan heure lay wàcc 8 lay xëy di heures pile lay wàcc boo fa ñëwee nag lii nga xamante ne jot nañu ko fi waxtaanee muy bayre ubbiku ak seet listaxaar yooyu yépp ak li nga xamante ne mooy kaaraange waxtaane nañ ko waaye bi ñu mujj wax ponk bi ñor na ma lool xale yi di def BFEM ak bac wala nga bëgg jàng sa xel nëx loo jàng fàtte ko boo ñëwee ci moom am na ay secret yoo xamante ne bu loo ko defalee dootoo jàng dara ba fàtte ko bu ñu paree ci boobu nag ñu ñëw ci bi nga xamante ni yàq na kër yépp takk nañ ko tey tas na démb lan moo ko waral ah faiblesse sexuelle faiblesse sexuelle moom luñ ci mën a waaw kër yaa ngi tas de sëñ bi. waaw xam nga bala ñoo ñëw ci faiblesse sexuelle am na loo xam ne ko sax wax. Hmm. muy dëkk bi dafa metti hmm. ba pare liggéey amul xam nga dara amul. ak ñi nga xam ne tey jii nii ndeysaan dañoo sonn. Hmm. maanaam man jërul sax nit ñi di ñëw ci man man mën naa joxe secret yoo xam ne man damay liggéeyal Serigne Saliou billaahi maanaam lu am ci àdduna man nit ñi ñoo ma gënal lu ma am. loolu nag sëñ bi dama bëgg. fin ba. waaw nga baaxee ko gars yi. waaw incha allah dina maye loo xam ne ci wàllu ubbeeku. ko képp ku ko def xaalis moom doo tàqali ko ak moom mukk. waaw nga may ah loolu rek loolu fin ba. kon gaa yi seetaan leen ba fin ba. léegi nag nañ ñëw si si faible section ndax man sax loolu ñor na ma man damaa bëgg xaalis sëñ bi. <laughs> waaw baax na faible section loo ma ci mën a wax. waaw faible section mooy li ma la wax rek képp koo xam ne jëflante nañ si ci kàttanu yàlla Euh, su fekkee ne maanaam da nga nekk nit koo xam ne tey jii ne xam nga faiblesse sexuelle dafa bëri façon. Mhm. ndax am na ñoo xam ne stress moo leen koy def. stress stress. lu ci ëpp moo moo moo leen koy def. d'accord am na ci ñoo xam ne tamit euh, judduwaale la am na ci ñoo xam ne tamit euh, maanaam dañuy dem ba jàpp ne ñoom dañoo dañoo dañoo néew kàttan fekk ne néewuñu kàttan sax. Mhm. maanaam ñàkk am soxna moo tax xamuñu ñoom. maanaam seen seen seen seen doole. Mm. xamuñu ngi may dégg am na ñoo xam ne stress lañu am. yaa ngi may dégg am na ñoo xam ne judduwaale la am ñoo xam ne dañ leen koo def takk xale lay doon yaa ngi may dégg mais lu ci mënti am ñun buñ jaaree ak yow ci wayazidukum xuwatan ilaa xuwatikum suñu borom dina la may kàttan goo xam ne macha allah di nga sant yàlla su fekkee ne danga nga daan euh, sëy sa soxna di gaaw a daanu hmm. ci kàttanu yàlla boo ñëwee yaa ngi may dégg dinañ la jox loo xam ne tey Eh, di nga mën satisfaire sa soxna da nga dem ba xam nga jigen ñi dañoo naqaree nekkal. gawa daanu bi sonal na gars ci keri de. waaw amna jigen gawa daanu bi. voilà amna jigen ño xamne manam ñom euh bu fekke da nga nekk ak ñom mhm. euh do leen yëngal rek man nañ la bayyi waaw wala ñuy énervé wu wala ñuy dem séti sa morom. waaw da nga may deg lolu baaxul waaw ta lolu yalla nañ ci yalla musal manam tay ji ni nga nekk ak sa soxna ba pare doko jox lu mat te jigen euh, maanaam li koy jot dafa yombul. waw ndax suñu borom dafa am ño xamne tay tey jii nii da may len am ño xamne tay buñ defé ben yon paré nañ ci mais ben yon bop man nañoo gawa da man nañoo baña gawa da a mm-hmm. may dégg. Mm-hmm. yaa may dégg am na si te jigéen ñi dañoo bëgg tey jii nii euh, dañoo bëgg tay jii nii di def di defat ku leen di géttan ci laal wala di mm-hmm. def di defat dañ jigéen dañ ko bëgg. man nga ci man nga ci nek sax nga def ak ñom ba paré sax yow nga dem ba ag ter àggateer ñoom pareeguñ. hmm yang may dégg mais bi gëna bax yang may dégg moy bi nga xamné tay ji ni goor gi nga xamné mo gëna gën mo mm-hmm. gëna bax moy ki nga xamné tay ji ni guddigi man nga sé am ñent ba juroom ñent ba juroom wallahi gis nga man man na la xamal leen wallahi wal qur'ani képp ko xam ñew nga ci man man man na la jox lo xam tay tey jii nii tey jii da nga sey ak sa soxna tay jii nii fukki waxtu ak ben sëñ xana lolou ding ma ka jox man. fukki waxtu ak benn balaa may ñibbi tey. yaa may deg xana ding ma ka jox. wala yaa ngi may dégg ñeent waaw am na sunguf soo xam ne tamit bu ma la ko waxee bu ma la ko joxee tamit quatre heures de temps mën nga koo am sa soxna ah sëñ bi loolu nag war loolu moom da nga ma ko war a jox ndaxte man il faut man ma essayer loolu waaw yaa xaw yi yaa matinu tamit am na lu ma ciy liggéey tamit ba am yu ma koy booleel ay xeetu reen yoo xam ne su ma la ko joxee tamit incha allah guddi gi mën nga am cinq ba six ba sept bala ngaa ndékki ji moom mooy septième sëñ bi mbaa boo xëyee di nga liggéey non da da am kàttan parce que alxuraan la alxuraan la maanaam alxuraan lu mu la mën a may ci àdduna du la ko xañ. man de dégg naa lu ne ay ñett. dégg ah. naa ay ñaar. dégg naa ñeent waaye set moom maa ngi koy soog a. dégg non maanaam mën nga ko am ci guddi. Ah, illah ah, maanaam dafa am dafa am ñoo xam ne tey par exemple day am na góor ñoo xam ne bu ñu defee benn maanaam mën nañoo ñëwaat defaat beneen ñëwaat defaat beneen boobooy mu boobooy bu gën a baax am na ñoo xam ne stress am na ñoo xam ne tey am na xeetu jigéen ñu jonge ñoo xam ne tey jii nii dañoo jong ma jong ma jonge jonge goo xam ne tey jii nii mën ngaa jàkkaarloog ñoom rek daanu na kërëb waaw xam nga lu koy waral waaw bul yaakaar ne yow da néew doole de mm-hmm. da ngaa néew kàttante mm-hmm. ñoom ñoo jonge ba sa xel nekk si ñoom seen xeetu préparation. maanaam sa xel bu ci nekkee rek maanaam ñoom mën nañoo dem ba jàpp ne yow da nga da nga da nga daanu fekk ne gaaw a daanu ñoom ñoo jógee te yow boo ko gëjee def wala sa xel nekk ci lool de trop de trop de trop yaa ngi may dégg mën nga gaaw a daanu fekk ne yow nekkoo ku feebar mm. yaa ngi may dégg mais nag genre yooyu ñu si ëpp am na ci ñoo xam ne boo bu fekkee ne da tiim ku jigéen ki nga gaaw a àgg am na ñoo xam ne balaa 10 ñu jugaat te bu jugaatee seen deuxième moytul. waaw waaw waaw seen troisième moytul. am na ñoo xam ne lu ñu gën a dem. waaw di gën a am. di gën a dëgër di gën a dëgër. boobooy bu baax bi. mais am na ñoo xam ne ñoom benn rek ci seen àdduna bu ñu ko amee ci guddi gi jeex na. pare nañ ci na ci ñoo xam ne tamit ñoom na ma yàlla jéggal nañu dara. waaw maanaam maanaam ñoom moom mënuñu mënuñu dara. waaye loolu metti na waaye dañuy dem ay une minute wala une minute soo dafa àgg wala deux minutes pare nañ ci soxna si da lay mere voilà moo tax yooyu moom ñun suñu borom may nañu si loo xam ne képp koo xam ne jëflante ci jëflante nañ si ak yow rek di nga kontaan daal bu baax a baax a baax incha allah. macha allah man de yàgg naa wër di dégg yàgg naa gis ku nekk ma koy laaj. Mhm. ci affaire faiblesse sexuelle waaye ay ñaar la may wax ak ay ay ñett fa lañ daan yem. waaye juróom-ñaari yoon ci guddi gi nga sëy ko c'est la première fois ma koy dégg te moom nee na lépp lu muy def rek ci alxuraan la koy def. Mhm. jàpp leen turam na xale bu ndaw la jeune la macha allah jeune la boo ko xoolee xam ni kii jeune la te yàlla def na ci moom xam-xam mu def nii wëraaluwu ko fen daf koo jàng ba maîtriser ko macha allah mhm. pour jàppale leen yéen doomu aadama yi Cambérène euh, station API bi boo fa ñëwee rek foofu boo taxawee jël sa téléphone nga woote ci numéro yi nga xamante ne moom laa lay wax 77 472 23 36 dina la ne allo Malika Plage it boo fa ñëwee it nga nga waat ko ci numéro bi nga gis muy euh, défilé noonu ci barre d'écran bi boo ko woowee it mun la allo faiblesse sexuelle moom moo ca mën man de li ma yàgg naa wër gis naa ku ne ci faiblesse sexuelle waaye li mu ma wax tey mosuma ko dégg bu ñu paree ci faiblesse sexuelle ñu ñëw ci hémorroïde ndax hémorroïde it dafay occasionner faiblesse sexuelle. waaw waaw maanaam am na ñoo xam ne tamit